bi saraful waxi waa atum di yemoo lundi 18 octobre 2021 ci atum tubaab seen chaîne Tiwaawan 7 TV nara ànd ak yéen dund guddi gi gën ci guddi yi muy guddi mawlidul nabi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir sàmmonteeg digle yi jóge ci xalifa général des Tidjane di Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour ba mu waxee ni ku taalibe bu nekk ku yaakaar Seydil haji Malick Sy na nga gàmmoo fi nga nekk nga gàmmoo fa li ko waral di mbas mi li ko waral di Covid 19 mi nga xamante ni ba léegi génnul ci réew mi. ginnaaw loolu ñu chaîne Tivaouane 7 TV nar a ànd ak yéen dégtal leen guddi gi. ginnaaw ndigal li Tivaouane 7 TV ñi du ci des benn yoon dana ànd ak yéen ba taalibe fu mu mënti nekk dund li nga xam te ni moom mooy guddi gi nu mu koy defee mooy li ko dooree benn fan ba fukki fan ci burdi yi mu nar a ànd ak yéen jox leen en direct ci YouTube ak Instagram Tivaouane 7 TV dund ak yéen guddi gi. au domicile de Serigne Sidi Ahmed Sy nar ko ànd ak sunu papa di Serigne Abdoul Aziz Sy nar ko dund ak yéen ba taalibe fu mu nekk nga mel ni yaa ngi biir Tiwaawan nii nañ koy doxalee ba gàmm gi nii nañ koy jàppoo ba gàmm gi ngir lenn bañ leen rëcc wéy leen di abonné ci chaîne YouTube Tiwaawan 7TV ak Instagram Tiwaawan 7TV ak yeneen réseaux sociaux yi ngir dund lépp li nga xamante dana am foofee ca kër Serigne Sidi Ahmed ci

Tivaouane 7TV di màggal guddi gi ak yéen di guddi mawlidul nabi nan leen ko wëy àndandoo ndax ni ko Cheikh Seydil Hadji malik Sy waxee wa mawliduhu bihi sharafun waxiirun guddi gi gën ci guddi mooy guddi gi Seydina Muhammad ñu koy màggalee ci Tivaouane ci réew mi ak ci àdduna bi Tivaouane 7TV du ci wéet benn yoon di ko ànd ak yéen di ko dund ak yéen ak sëriñ Abdul Aziz si Ibnu sëriñ Sidi Ahmed si Babacar sëriñ Babacar si Mansour yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Babacar si Mansour jëfati